ànd ak kenn koo xam ni ci kër gi la bokk muy Ablaye njaay mii toog Ablaye njaay ñu may ma tuuti rek parce que dama bokk ci jamaatul Nour al Sunniya ci communication bi te bari na lu nit ji jëf doon ko wër a biral la mu def ci jumaa ji ginnaaw président la république bi ci jëf amul ku ko ci ëpple bi nu ñëwee ba ci li des li nga xam ni mooy nekk ci li nga xam mooy clôture jumaa ji moom moo ni ginnaaw li mu def ci jumaa ji clôture jumaa jooju man maa ko gàddu. bu ñëwee ci zawiya sëñ Babacar bii ñuy defar tey moo ci def lépp di ko def imar ba ñi nga koy commencé te fekkee naa mu am yéene ba pare jàpp na ci ni lii fi de fii di suuf ngay jóge ci kër gi di ñëw fii. bokk na ci li nu projet bi nga xam ni gàddu na ko pour defal ko kër gi bi ne jàkk euh, zawiya fi mu ne sama sama turandoo ci ñi ko taxawu ba mu àgg moom ci la bokk kon sëriñ bi kooku jëf jooju mu jëf dëkk ci kër gi baayam di alaaji Ngalgu Njaay kon kenn ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktuum nekk kenn ci kër sëñ Babacar moom mu nekk doom di taalibi sëñ Abdou Aziz Al Amin bari na lu mu daan wax ak lu mu daan jëf kii da koy sant waaye nag ñun taalibe yi màggee ci kër gi xam ni kër gi doon du wërsëgay tax ñu jàpp nit pas-pas ak yaray tax ñu jàpp nit te bu ci nekk jëfandikoo na ko moom ak doomi Tiwaawan yi lépp loo xam ne daf ciy dugg Tiwaawan la ciy jiital kon sëriñ bi ku moom bu àndee waa banque bi day tegtale ni moom am na diggante boo digganteem ak banque bi digganteem ak banque boobu nag. mooy waay siwul loo fay partenariat bi loo fay dugal wala ñu xam ne sa dossier la ñu traité ko waaye sëñ bi de ñun jàpp nañ ko ak sëriñ bi ak yéen yi ñëpp njaboot bi ndax Ablaye ci boppam amul par parloo ci kër gi kër gu nekk rek néeg bu nekk sëriñ bu nekk mën na faa dugg wax ak moom génte kenn du ko yëg sëñ sa mag sëñ si Sy su daf ni man day naw naa ko te sopp ko ma ni ko lu tax mun ma ci yar ak discrétion amul lenn lu muy def jëf fësal ko kon ñooñu bu nu àndee délégation bi ñëw dama la koy seedeel pour nga xam ko bu baax duñu bëggoon nag jox monsieur le directeur général kàddu gi mu yëkkati ba pare ñu jox sëriñ bi mu tontu ñaanal ak sëñ moodo si toogloo fii ci jàkka ji njàngum alxuraanum fajar yu xale yi mooy dundal gor su baax si toog moom lañ dénk moo nekk fii ci jàkka ji moom leen dénk sëg yi muy ñaari mbir yu nit war a mën a am jàngat kunu dénk jàkka ji kat mooy jaamul yàlla ndax moom la santaane ku dénk sëg yi mooy bàyyil sa bopp bu ëllëgee fa ngay mujj kon fii ngeen ko fekk di daara ji fii rekk la maam boyale woon ñépp ñëw fekk ko fi mu jàpp ci lépp ñeenti tax nit mën koo dégg bi ci njëkk mooy mësunoo def dara ñun waa jamaatul nuur ci jumaa ji te sëriñ bi waxu nu ànd leen teeg sëriñ ab Abdu ngeen ànd ak moom bërki démb bi nu fa toogee di def présentation dañ koo ñaanoon mu ñëw ca jàkkay maam da mu defoon ju njëkk ja mu jiitu nu fa tisbaar ñun waa jamaatul nuur xam ngeen lan la ñuy nawee maasaar mooy mu yóbbu ngaax yi kipp kipp nag yombul fii nag taalib yi ngeen fi gis kenn yalwaaniwul fii ci ngeen dégg bu ngeen génnee fii seen càmmoñ hôpital a fa nekk bu ñu ay nit ñoo xam ni ñooy faj te xale yi duñu génn mi ngi fii fii la xale yi wàcc di jàng alxuraan fajar suba ak tàkkusaan amul fenn fu mu dem magam ju baax sëñ ab Aziz Al Amin daf ni am naa wéttal ma ni ko kuy sa wéttal mu ni sëñ ab sëñ Mbay du mooy sama wéttal ma ne ko lu tax mu ne ma parce que guddi guddi Tiwaawan guddi guddi Tiwaawan nag neexul dégg ci jamono du fanaan Ndakaaru fudul fii lu mission bi tar tar tar bu dee dafay def ba fajar fii lay ñibbisi sunu sëriñ bu baax bi di sunu mbokk moom laa bëgg jox kàddu